des fois dama naan est-ce que réellement nit ñi xam nañu njëriñu nebedaay mooy li ñuy wax moringa bu ngeen ko xamoon du ngeen ko bàyyi utiliser te bu ngeen ko dee utiliser yàlla mën na def feebar yu bëri yu leen di dal que ça soit sportif wala nga ñàkk na sportif yàlla mën na la mucc loo ci euh, feebar yooyu tey laa lay wax nag lu tax nga war a mën a intégrer moringa mooy li ñuy wax nebedaay ci sa alimentation un c'est nutritif deux c'est antioxydant d'après les les nee nañu nebedaay bii nii day faj ci lu ëpp ci ñetti téeméeri feebar imagine moo tax gis nga actuellement nii lu ci bëri ci garab yu ngeen di jël dafa am nebedaay ci te nebedaay bii boo ko dee jël yàlla mën na def nga mucc ci yoonu hôpital ak yoonu pharmacie te lu ci bëri lu ngeen di dem euh, pharmacie lu ci bëri ay yaram yu metti la ay problème yu yàq ay manque vitamine ay manque calcium yooyu moo leen yóbbu te pourtant produit bii nii amul lu ko ëpp vitamine ak ay calcium maa ngi leen di wax léegi ni que c'est antioxydant pourquoi antioxydant gis nga lépp li ci xeetu vitamine yi nga xam ne moo ko composé am na vitamine C am na vitamine A am na vitamine E la la la famille des vitamines B B1 B2 B3 B5 B6 B8 B9 donc gis nga li li nekk ci xeetu vitamine jeexagul de seen minéraux yi nag moom boo jëlee am na calcium am na magnésium am na potassium am na euh, euh, sélénium et mu ngi ci euh, moringa bii nii te pourtant lu yomb la ci Sénégal parce que garab bi bëri na fi gis nga bu dee da nga da nga sa yaram day métti doo jël moringa régulièrement sa yax bu dee métti doo jël moringa régulièrement ba ci sportif nga xam ne fii danoo soxla xam nga sportif lu ci bëri dafa soxla récupération soxla endurance dañuy euh, soxla euh, ñi nga xam ne dañuy def euh, musculation dañuy soxla un taux de protéine assez conséquent pour que ñu mën a réparer seen micro lésions yi boo dee def musculation wala n'importe quel sport booy def deel def deel jël moringa da ngay gaaw récupérer da ngay am da ngay nelaw bu baax da ngay am un sommeil réparateur donc plein de choses yoo xam ne si Euh, nit ñi dañ koy soxla problème digestion maa ngi leen di wax li euh, problème digestion bu dee da nga bëgg mucc ci lépp luy xeetu cancer moringa bi def ci baax parce que c'est anticancéreux li ñuy wax man les maladies cardiovasculaires le le le euh, moringa bii nii de ça protège le cœur et ba pare de renforcer ce système immunitaire Euh, donc lu bëri xam ne si rek yàlla daf ci jël dëxañ ko ci euh, moringa bii nii te mu jëriñu lool te xamuñu euh, njëriñam moo tax ma leen di ñax di leen digal ngeen dem di jël moringa ba ci jigéen ñi nga xam ne si dañuy bëgg am karaw parce que moringa xam nga dafay am huile dañ koy diw ci sa karaw da ngay gaaw a da am am karaw macha allah bépp xeetu maladie rek boo xam ne si yaa ngi koy am mu tëla moo tax ñu tuddee garab gii nii euh, l'arbre euh, l'arbre miracle donc c'est pas pour rien euh, ñu tuddee que noonu donc nga nekk sportif wala nga ñàkk nekk sportif dama lay digal nga gaaw a gaaw a gaaw commencé dem di jël moringa parce que xam nga sunu lekk c'est très pauvre en en sels minéraux en vitamines surtout les protéines sama gars yi nga xam ne si dañoo bëgg jël masse dinaa ñëw ak moringa nan nga ko mën a utiliser ba mën a jël masse avec euh, la musculation te moringa euh, lépp la mën a àndal mën na àndal limon mën a àndal ànd ak ak euh, miel mën na ànd ak lu nekk mais lenn rek nga mën a ngay war a éviter bu dee da nga am jabet parce que dafa baax ci jabet parce que day day day yokk la performance du taux de de de la production de d'insuline donc dafa baax ci jabet yi bu dee da nekk jabet yi bu dee dañ koy jël euh, na nga am sa avis médecin parce que mën na am une interaction entre médicaments yi ngay jël ak euh, moringa bi euh, ak bu dee da nga am les maladies de insuffisance les les cardiaque ak yooyu balaa nga koy jël ak xeetu maladie boo mënti am boo commencé jël médicament na nga am sa avis médecin balaa nga koy booleeg moringa bi un enfant un enfant moins de ans aussi tamit waru ko jël mooy de seize ans bu leen ko ko jox euh, loolu recherce yi ngeen ñoo ko révélé beneen bi aussi tamit les femmes enceintes balaa ngeen koy jël aussi tamit na ngeen euh, laaj seen avis médecin euh, beneen bi ci mujj mooy ngeen éviter di ko jël laam yi parce que mën na perturber seeni sommeil j'espère que grosso modo comprendre ngeen lii résumé kese la mais li ci nekk ci xeetu maanaam vertu jéggi na daywa Euh, donc di leen ñaan ngeen abonné ci page bi partage vidéo bi parce que benn partage boo def rek jaamu yàlla la parce que mën na euh, tombe ci nit nit koo xam ni am na soxla euh, bu jàmp ci wàllu wér-gu-yaram mën na tombe ci vidéo bi yàlla def mu gis si solution di leen jox di daje ba beneen yoon incha allah